alhamdulilah rabil aalamiin wasalaatu wasalaam ala sayyidi almursaliin wa imaami almuttaqiin nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa asxaabihi ajmaciin amma baad mbokki jullit yi ñu xam ne dénkaane sunu borom tabaraka wa taala bim mas a dénk mboolem xeet yu fi mas a jaar ba ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy dénkaane ragal yàlla moo tax borom bi wax ne ko dénkoon naa ahlul kitaab mu ña la jiitu woon te amoon diine ak yéen ne ragal leen yàlla dénkaane sunu borom boobu mu dénk bindeef yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi moom la dénk aw yiwam aw xeetam moom la dénkoon xeet wi moo tax abu umaama mu ne dégg naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam day ca kero aj gi nga xam ne ci la tàggoo xeet wi dégg naa ko muy xutba di wax lii mu ne ragal leen seen boroom julli leen seen julli yi juróom woor leen seen weeru koor joxe leen asakay seen alal topp leen seeni njiit su ngeen ko defee da ngeen dugg àjjana seen boroom yooyu yépp ak li ñuy am solo lépp bi mu koy tudd mi ngi ko tàmbalee ci ragal leen seen boroom ragal sunu boroom tabaraka wa taala nag mooy bu ñu waxee ragal mooy nga wut fegu lu lay fekk ba mën a dox sa diggante ak meram loolu nag mu ngi amee ci nga def lim lay digal bàyyi lim lay tere def lépp loo xam ne mën nga ko ci lim la digal ba fa sa kàttan yem te bàyyi mboolem lim lay tere ci loolu ngay amee ragal sunu borom tabaraka wa taala moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ne ragal yàlla mooy nga jëfe topp yàlla ci leer gu jóge ci sunu borom tabaraka wa taala leer googi leeru alquran ak sunna la ci loola la ñuy toppe yàlla ak leeruk tawfiixi sunu borom tabaraka wa fekk bi ngay topp yàlla li nga ci jublu mooy am yool bu jóge ci sunu borom tabaraka wa taala maanaam da koy jaamu ngir mu defal la xéewal yool la bàyyi itam may sun mooy sunu borom tabaraka wa bi maanaa bàyyi lépp loo xam ne lu muy tere la loolu it boo koy def li nga ci jublu mooy daw mbugalum sunu borom tabaraka wa ragal yàlla nag dafa am ay njariñ yu baree bari am na ci njariñ yoo xam ne fii fi àdduna la ko jaamub yàlla bi di jote fii la ko koy joxe am njariñ yoo xam ne ña ngi koy xaar ëllëg kon xutbab tey bi mi ngi jëm ci njariñ yi nga xam ne moom la sunu borom tabaraka wa taala di gaawe jox ko jaamam bi ko ragal mu jox ko ko fii yooyu nag yu bari na ba ca jëkk mooy kenn ku nekk xam na ne doomu aadama yi bokk na ci yi ñuy dund ak fu ñu mën a toll fii ci àdduna mooy ay jafe-jafe di leen gaar ci seenu dund moo xam ci seen alal wala ci seen liggéey wala ci seen njaboot borom bi tabaraka wa taala xamal nanu ne ragal yàlla day tax mu yombal mbiri jaam bi nee na ku ragal yàlla mu yombalal ko mbiram loolu alquran la wa man yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusran ku ragal yàlla mu yombalal la say mbir kon soo gisee say mbir jafe si siwaatal nga xool sa doxin ak sa mbir ba xam daa am lu ca duggam déet bokk na ci yooya moo di ragal yàlla day feg nit ki ba mu mucc day musal nit ki ci pexe seytaane ak ci loram kenn ku nekk xam na ne seytaane mooy noon bu mag bi nga xam ne ku yàqu fii moo la yàqal borom bi nee na ñi nga xam ne ñoo ko ragal def na ci ñoom loo xam ne saa bu leen seytaane fexeelee ba jaxase leen bala ñoo dugg ci njaaxum rek faaw ñu fàttalikuwaat gis ne ñoom kat ndekete li ñuy bëgg a def baaxul wala li ñuy bëgg a wax baaxul su ko defee ñu taxaw kon day mel ne appareil boo xam ne appareil taqwa la bu suñu borom monte ci ki ko ragal nga xam ne su ko seytaane jax-jaxalee ba dara desul lu du dugg ci mooy yàlla rek appareil boobu def liggéeyam mu taxaw kooku mooy contrôle bi nga xam ne moo koy fàttali boroomam mu dellu gannaaw ba du dugg ca mooy googee inna alladina taqaw ida massahum taifun min alcheytaani tadakkaru fa ida hum mubsiruun ndax cheytaane bu lay jekku day mel ne danga danga da gëlëm wala danga dul gis waaye nag waa su defee liggéeyam rek xel mi day siwaat bët yi gisaat xol bi leeraat mu dellu gannaaw bañ a def mooy yàlla googu bokk na ci njariñ yooyu moo di ragal yàlla day ubbi xéewal yuy jóge ci kaw asamaan ak yu jóge ci suuf jaam bi ragal boroomam tabaraka wa taala jarul muy tiit moom fii ci wàllu àdduna lépp borom bi da koy jagal moo tax boroom bi ne su fekkoon ne nit ñi dëkk ci àll yi wala ci dëkk yi ragal nañ yàlla nee na kon danaa leen ubbil ay barke yoo xam ne day wàcce ci kaw asamaan di balle ci suuf kon ku la gën a jege ragal yàlla moo la gën a jege xéewal sunu borom tabaraka wa taala ak barkeem barke nag buñ ko waxee rek du caagi ne mooy koom-koom bu bari buy sotti ko ndax léeg-léeg nga xool réew yi yéefar yoo xam ne bu dee koom-koomu kese xëy na mën nañ koo ëppale sax réew jullit waaye nag waxul ne daf leen di ubbil euh, alal waaye da leen di ubbil barke la wax te barke nag moom mooy li am solo bokk na ci njëriñ yooyee moo di ragal sunu borom tabaraka wa taala daf koy indil tawfiq yoo xam ne dana ci mën a xàmmee dëgg ak caaxaan ci mbir yi nga xam ne njaxas daf caa am ba mu lëndëm borom bi tabaraka wa taala daf koy defal ci wàllu xam-xam loo xam ne dana ci mën a xàmmee la baax ak la baaxu la dëng ak la jub ci masala yoo xam ne xilaaf da ciy am maanaam ak jooyoo ko tar da ciy am boo xam ne du leer borom bi tabaraka wa taala defal ko ci leer moo tax mu ne yéen ñi gëm yàlla su fekkee ne ragal ngeen yàlla yajal lakum furqaanan maanaam dana leen defal loo xam ne ci ngeen di tàqalee dëgg ak caaxaan waxaat ne yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla te gëm ab yonentam su ngeen ko defee dana leen fay ñaari pey pay gu àdduna ak ci yërmandeem wa yajal lakum nuuran bi bihi mu wutal leen ak leer goo xam ne ci ngeen di jaar maanaam fooy teg sa tànk fu nekk da koy xool ba xam ne fii jaaruwaay la nga door faa jàll bokk na ci njëriñ yooyu moo di ragal sunu borom tabaraka wa taala sabab la ci nit ki mën a génn ci bépp problème akub jafe-jafe akub tànk-tànk ci dund gi di ko andil itam wërsëg woo xam ne wu yaatu la borom bi tabaraka wa taala nee na wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan ku ragal yàlla mu wutal la ab génnuwaay maanaam solution ci bépp problème boo xam ne dugg nga ci wa yarzuqhu min xaytu laa yaxtasib mu wërsëgal ko wërsëg woo xam ne moom tàbbiwul woon sax ci ay calculam xalaatu ko woon sax ne loolu dana ko dikkal daf koy bett bokk na ca moo di ne li ñuy tudde ak wilaaya muy nit ki nekk wàlliyu yàlla ragal yàlla képp moo ko mën a jox jaamu yàlla bi borom bi nee na in awliyaahu illa almuttaquun ñi ragal yàlla képp ñooy ay wàlliyum kon amul weneen wàlliyu woo xam ne wu ragalut yàlla la ragal yàlla sabab la ci bokk na ci yi waral nit ki sooy xelam dal ci pexe moo xam ne mépp pexe moo xam ne ab noon mi ngi ko koy fexeel moo xam noonub yéefar la wala noonub leneen waaye su ragalee yàlla mucc na ca pexem noon moo tax borom bi tabaraka wa taala ne su fekkee ne muñ ngeen boole ko ak ragal yàlla xam leen ne pexem ñooña du leen mën a dara mënal dara wa in tasbiru wa tattaqu laa yadurrukum kayduhum shay'a su ngeen muñee ragal seeni pexe du leen mënal dara bokk na ca sabab yooya moo di ragal yàlla dana indi nit ki li muy def ci ay jëf yu baax ñu nangul ko ko maanaam dana ko xiirtal ci def lu baax waaye bu defee lu baax dana tax ñu nangu ko dana taxit ñu jéggal ko ay bàkkaaram ndax nit it lu mu baax baax ginnaaw du yonent faaw nag muy ami bàkkaar bàkkaar yooyu dañ ko koy jéggal borom bi tabaraka wa taala nee na yéen ñi gëm yàlla ragal leen ko tey wax wax ju baax su ngeen ko defee yuslix lakum amalakum dana leen jàppale ba seeni jëf doon yu baax wa yaxfir lakum dunubakum mu jéggal leen itam seeni bàkkaar nit ku su amee lool am na tawfiq fii ci àdduna ak ëllëg sax ragal sunu borom tabaraka wa taala day tax nit ki am ay teggin ci digganteem ak képp kum ko war a amee rawatina digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam ci dundam la wala ci génn àddunaam digganteem ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain moo xam ci seenu dund la wala seenu génn àdduna digganteem ak boroom xam-xami xeetu lislaam ñiy jëfe seen xam-xam moo xam ñaa ngi dund moo xam génn nañ àdduna waaye day am teggiin ànd ak ñoom ndax boroom xam-xam yooyu ñoo wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa ci kaw suuf moo tax borom bi wax ne yéen nit ñi nga xam ne buñ toogee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam sax duñ yëkkati seeni baat ci kaw baatam maanaam dañuy wax wax joo xam ju yem la ci dégg nee na ñooñu ñooy ñi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala defal na leen taqwa muy ragal yàlla ci seeni xol ragal yàlla sabab la ci yi tax borom bi tabaraka wa taala bëgg ab jaamam te yàlla ku bëgg moom sa mbir baax na yàlla na ko yàlla defal bëggeel googu nag bu amee fii ci àdduna day jurug mbëggeel àllaaxira loolu moo tax mu rëy moo tax boroom bi tabaraka wa taala wax ne képp koo xam ne day matal na kóllëreem ci tawxiid digganteem ak boromam boole kook ragal yàlla na xam ne yàlla moom ku bëgg ñi ko ragal la fa inna allaha yuhibbul muttaqin bokk na ci ragal yàlla yi muy jariñ nit ki moo di daf koy ubbil bunti xam-xam ki buntu xam-xam tëju ci moom suy jàng muy jafe su bëggee mokkal mu jafe na mu koy faje na ragal yàlla rek na def ndigal yi bàyyi tere yi tëwee ci njàngam rek borom bi dana ko ubbil xam-xam wattaqullah wa yuallimukumullah su ngeen ragalee yàlla yàlla yombalal leen xam-xam njariñ yooyu bokk na ci moo di ragal yàlla sabab la ci nit ki am yërmaande yi sunu borom tabaraka wa taala moo tax borom bi tabaraka wa taala ne wa rahmati wasiat kulla shay sama yërmaande yaatu na ba lépp xaj na ci maanaam borom bi tabaraka wa taala yërmaandeem yaatu na ba lépp xaj lu bari ci nit ñi nag dañuy wax loolu daal di fay yem rek ni yërmaande yàlla yaatu na ngir bëgg def loo xam ne ay njaaxum la waaye borom bi bi mu nee wa rahmati wasiat kulla cheyin maanaam sama yërmaande yaatu na ba lépp xej na ci dane fa sa aktubuha lilladina yattaquun danaa ko bindal ñi nga xam ne ñoo ma ragal kon yërmaande jëkkat yaatu na waaye ànd ak li muy yaatu yaatu ñi koy ragal la ko jox ñooña mooy ñi nga xam ne wa yutuuna zakata nee na seen asaka dañ koy joxe ci seen alal walladina hum bi ayatina yuminuun bépp kéemaan wala màndarga bu jóge ci sunu borom tabaraka wa taala dañ koy gëm bokk na ci njariñ yi nga xam ne ragal yàlla am na ko moo dina ku ragal yàlla yàlla day ànd ak moom yàlla nag ànd ak moom googu lañ ca jublu mooy dalay dimbali ci waxtu woo xam ne aaja nga ndimbal di la dëgëral ci waxtu woo xam ne aaja woo nga ku la dëgëral di la jàppale ci waxtu woo xam ne aaja nga ku la aajo woom nga ku la jàppale waaye bu fekkee ne ànd nag lañ wax rek ànd ak sunu borom gi nga xam ne moo gën a yaatu moom képp ku mën a doon ci suuf foo mën a toll fu nekk moo xam ku baax la wala ku bon xamal ne sa borom mi ngi ànd ak yow maanaam loo def mu wax mu xam ko loo wax mu xam ko loo xalaat mu xam ko googu àndaloo moom la ñuy tudde almaiyatul amma ñépp ci yem yéefar baag jullit baag keneen lay jax-jaxal ci xelam sax borom bi tabaraka wa xam na ko kon googu àndandoo taxul ñuy wax waaye àndandoo gi nga xam ne àndandoo jàppale la nag ak dimbali googu moo tax ñuy wax ki ragal sunu borom tabaraka wa taala borom bi day àndeeg moom noonu mooy saabu bu njàqari dikkee borom bi faj ko saabu daase ñëwee ci ak dundam borom bi tabaraka wa taala fegal ko ko du dul su fekkee loo xam ne dogal ba da caa jiitu moo tax mu ne inna allaha maa alladina taqaw walladina hum muxsinuun yàlla dafa ànd ak ñi koy ragal ànd ak ñi nga xam ne dañuy rafetal waalamu anna allaha maa almuttaqin xam leen ne yàlla mi ngi ànd ak ñi ko ragal bokk na ci it njariñ yi nga xam ne waa am na ko te bokk ci yi gën a rëy ci war a tax góor jullit yi góor góorlu ci ragal yàlla moo di ne ak lu mbir yi tar-tar ak lu metti metti mujj ga ci loxo yi ñu ragal yàlla rek lay jëm kon fexe ba bokk ci ñooña lu am solo la borom bi nee na wa inna lil muttaqina xusna maab waxaat ne inna al aqibata lil muttaqin maanaam mujj ga ña ragal yàlla ñoo koy yore kon kooku lu mat a bàyyi xel la ragal yàlla itam day indi jullit bi ñu koy bégal fii ci àdduna borom bi tabaraka wa taala di ko jox ay mbir yoo xam ne daf koy bigal bégal bég yooyu mën naa doon ci ay anam benn anam bi mooy mën nay gént gént yu baax yu jëm si ci moom wala keneen di ko ko géntal kooku lu koy bégal la luy dalal xelam la ci mu góor góorlu ci loolu ndax nit ki dana nekk ci mbir nekk ci ay tànk-tànk wala mu nekk ci ay jafe-jafe fekk ku baax la ku ragal yàlla la mu tëdd gént ñi won ko ne loolu day jeex muñal kon kooku da koo bégal tàbbal ko mbég ci xolam moo tax al imaam ahmad ci xadis bi mu jëlee ci abu darda ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne bi mu xoolee biñ ko laajee laay ji sunu borom tabaraka wa taala di waxe ne lahumul bushra fi lxayaati dunia ñu baax ñooñu yàlla ne am nañ mbég fii ci àdduna dañoo laaj yonente bi alayhi salaatu lan mooy mbég moom yi ñu am ci àdduna mu ne ar ruya saaliha yaraha muslim gént bu baax jullit bi géntal ko boppam aw turaa lahu wala ñu géntal ko ko kooku mbég la kon ku géntal sa mbokkum jullit nag gént bu baax a baax da nga ko war a àgge ne ko gis naa nangam ak nangam ak nangam ndax loolu tàbbal mbég la ci xolub jullit bu ko gisalee boppam it mbég la mu jóge ci sunu borom tabaraka wa taala kooku benn la beneen bi ci des mooy nit ki baax di góorgóorlu nekk ci ak jub nit ña di wax ci moom lu rafet di ko tagg di wax ne diw nangam diw baax na diw nangam moo tax Abu Dar al-Ghifari radiallahu taala anhu dafa laaj yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ar rajulu yaamalu al a ngi di def jëf ju baax nit ñi di ko ci tagg di wax ci moom wax ju rafet loola luy àtteem yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko tilka aajilatu bushra al mu'min ne ko loola mooy ak bégalub jullit la ci li teew fii ci ëllëg waaye li teew fii ci tey waaye mbég ma koy xaar ëllëg moo ëpp moom bokk na ci yooyu te mooy ñaar fukkeelu njariñ bi moo dina ragal suñu borom tabaraka wa taala sabab la ci nit ki am ak gindiku génn ak réer dugg ci ak xam génn ak lëndam dugg ci ak leer am tawfiq ci wàllu diine te bokk na jafe kon ragal yàlla dana indi borom bi nee na alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqin nee na ak njub la day gindee waaye ñi muy gindi mooy ñan mooy ñi ragal sunu borom tabaraka wa taala kon kat ku ragalul sunu borom tabaraka wa taala alxuraanul karim du la indil ak gindiku goo xam ne gindiku tawfiq lay doon jaalana allah wa iyaakum min ahli taqwa yàlla na sunu borom tabaraka wa taala may ak ragal yàlla akuk sax ci ba keroon yu dajeeg moom ak di yokk ci xam-xam ak jëfe ak topp sunu borom tabaraka wa taala teg ko ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gannaaw loolu am na seen mbokkum jullit moo xam ne tuub na ci ay minutes yu néew ci gannaaw xëy na julli gi incha allah muy jullee bu njëkk ci lislaam noo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu saxal ko ci lislaam ngeen ñaanal ko it borom tabaraka wa taala ko ci lislaam ak sunna ba keroog muy wuy ji boromam ci loolu wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain